imam en tant que imam ñu gis ne yow yaa ngi ci mbirum diine bi. Sénégal bu tolloon fii dinañ gis. suñu kilifa yi dinañ génn wax. mais imam tekk tekkaaral bi. <laughs> waaw ñëpp la jaaxal que gis nañ tamit benn soxna lañ ci gis mu génn wax muy soxna mm-hmm. Umu Kalsum mm-hmm. bu bu Serigne Abdou Aziz ñu koy nuyu oh, au passage lañ ci gis mm-hmm. mu génn wax ñu déglu ko Dakar Matin <laughs> mais à part loolu tekk tekkaaral bi imam waaw ñëpp la jaaxal. ndax man dama loolu jaaxal na sénégalais ah. waaw si ñëpp la jaaxal parce que nag euh, man dama jàpp ne ku gën a libre ci àddina mooy boroom xam-xam. Mhm. loolu laa gëm. dama gëm ni libre kenn moo ko def mooy boroom xam-xam nit sax boo bëggee mu libre jàngal ko. kenn lañ gis mu wax te bokkul ci diine l'islam suñu mbokk chrétien yi la muy ki nga xam ne moo jiite. archevêque bi waaw bu Dakar bi dégg naa mhm. nit boo ko bëggee def jaam. xañ ko jàng soo bëggee mu libre jàngal ko mu xam boroom xam-xam li tax mu libre moom xam-xam bi muy wax dañ ko ko sant pour mu di ko wax aju ko mu bokk fee ak mu bokk fale dama ko wax benn mbokk souvent mu dégg ñu prononcé wu ak yooyu ah yéen kay dafa mel ni ni ngeen di waxee dangeen far a faral opposition bi da ngeen di dooleel Ousmane Sonko ma ko sëriñ bi man bi may wax xamaguma Ousmane Sonko. Hmm. daf ma fekk may wax nii. 2012 xam nga boobu Sonko duggagul ci politique de man 2012 annoncé nañ ma ne ma ñu ngi lay déglu toog nañ ci émission rajo Oxygène boobu moo fi nekk. Euh, temps bi xaw ma festival salaam la tudd xaw ma am na benn aussi yi temps yi mu fa ñëwee. Mhm. ñu fay def débat yoo xam ne ñu boole ñu ak waa PDS yi boobu jour boobu bi may ñibbisi dañ ne borom rajo bi kooku di ñëw oustaz bu génnee bu leen ko bàyyi mu jël oto jëlal leen ko oto mu ñëw parce que wóorul ndax gaa yi dañuy dal ci kawam. Mhm. cest à gis nga injustice ki koy def. Mhm. mu tudd Macky Sall mu tudd Khalifa Sall mu tudd Ousmane Sonko dénoncé ko farata ci boroom xam-xam kiñ koy teg mu tudd Déthié Fall mu tudd usmaan Sonko mu tudd Diomaye Faye nga dénoncé ko ko faratale ci borom xam-xam. Mhm. yow nag léegi ñàkk maanaam bañ ku la wax ne da nga faa far bu taxee nga noppi ci injustice bi ñuy doxal mais sëñ bi loolu war la. injustice bii di dox ci dëkk bi wallahi képp ku ko questionné di nga am ak yàlla affaire. Mhm. même ki jàngul même ki xamul dara da ngay gis ni lii dara dara jaaru ci yoon. Mhm. sëñ bi nag droit nag ñëpp xam nañ ko. maanaam dëgg droit sax lu ñuy jàng la mais dëgg kenn du ko jàng. dëgg dañ koy gis di ko xam. maanaam damay fekk ñaari xale di xeex fii léegi ma fekkee kii saago ko ba pare dóor ko ñoom ñaar ñu xeex ma xam ne kii moo tooñ man ma fekkee lool ñu dem tribunal ki tooñ saaga ba pare dóor. ñu jox ko dëgg. man ñu gëmloo ma ne ma li juge bi wax mooy dëgg <laughs> est-ce que seetlu nga li ma wax. Mhm. juge bi même bu waxee droit waxul dëgg. dëgg gi mooy li ma gis te kii moo tooñ te maa ko fekkee. Mhm. pénc mi li fii xew ñun dañ koo gis. dañ koo fekkee di ko seetaan du début ba fee gis ne lii du dëgg lii mooy dëgg. Mhm. léegi nag après àttekat bi na def lu ko neex. waaye yow li nga gis ak sa bët te mu leer la ne boo laloo sa ndeyjoor bii bu la yàlla laajoon lii ngay wax loolu ñu taxé la politicien ñu féetale la foofu féetewul ak luñ la ci mën a wax na la ko jaral parce que boo ko deful di nga am léegi yàlla assaakitu anil xaq cheytaanun axras yonent bi ne noppi ci dëgg cheytaane bu muuma nga ñi ne cheytaane moo la muumaloo kon de jot nañu wax waaw moo tax man ma jàpp ne xam na foo xam ne loo noppi noppi ci réew su ay bakkan di rot amatoo sañ-sañu noppi ay bakkan yuy dee ay alal yuy yàqu ay kër yuy tàkk ay liggéeyukaay yuy tàkk pour man loolu kenn waru koo noppi waale ay annuler élection ah ba ci annuler élection te loolu gis nga conséquences yi mu mën a jur no seulement xañ nga askan wi baatam waaye yow daanaka perturbé nga programme yi nga xam ne ci la nit ñi baaxoo woon di tëggi élection te mu nekk lu jafe organiser ci at mi temps bi ñu ko fixé woon nga xam ne chaque moment dinañ ko mën a def te du am benn problème temps boobu boo ko poussé rek gis nga conséquences yi li mu juróon ñi naan màggal ñi naan gàmm ñi naan nawet te fañ ko fixé woon daanaka daawuñu am problème boobu eh, dal dal nañu si élection législative yi bañ ko la dañu nawet maa ngi koy fàttaliku gars yi dañuy campagne sax bi di campagne si biir muy taw loolu mooy conséquence su pousse calendrier électoral gis nga tubaab bi tubaab bi coow lee bëri rek mais dañoo ñor de ñoom lépp lu ñuy def dañ koy natt dañuy natt élection ba def ko ci période boo xam ne lépp lu ñu ragal ne mën na koo yàq du ci bokk léegi nag yow nga bàyyi loolu yëpp di topp sa bànneexu bopp kese ak li la neex ak li la arrangé fu la neex toxal fu la neex dugal seen gis nga sëriñ am réew day dox ci ay loi ak i droit ñu xam ni réew mi am na tegukaay waaye réew du tegi ci bëgg-bëggu benn doomu aadama nga xam ne damay xëy tey kontaan réew mi yëpp neex mhm. ma xëy mer réew mi yëpp ni ci fitna ñun foofu lañ bëgg a tabaxi réew mi tey mooy réew mi léegi sosu ci bëgg-bëggu benn nit rek lay sukkandiku su ma xëyee kontaan ñëpp ne ci jàmm su ma xëyee mer réew mi yëpp ne ci fitna. Mhm. réew du doxee noonu nañu delloo si waat droit. Mhm. parce que moom moo tax tey nga am sañ-sañu toog fii di wax ak man ba mu neex la nga jóg ndànk jaar nii dugg ci oto bi téye sa téléphone te kenn foqatiwu ko parce que ki koy foqati bu ko defee dana xam ne am na beneen force buy ñëw ci kawam bu bokkul ak yow mi ko moom. Mhm. loolu bu dañee suñ diggante ñu ne jën yi ci biir géej ak yooyu rab ya ca àll ba di fàddante benn la ñuy doon. Mhm. mooy ku ëpp doole sa moroom fàdd. Mhm. Ah, te pouvoir nag kuñ ko jox pour nga dimbali nit ñi la mais pas pour nga toroxal leen. Mhm. Ah, yàlla. projet de loi bi foofu lañ koy tëjee sax. dugg na par forcing fi nga xamante ne muy assemblée nationale gis nga lu fa demee. ñu ñëw daal di génnee par forcing ñu génnee. député yi yeewi askan bi ak euh, wallu Sénégal mhm. ay euh, force de l'ordre yi ñëw génne leen salle bi ñu voté ñu voté ko par forcing loi bi ko mhm. élection yi fas yéene dem le 15 décembre bi ñu jëm mhm. si ban Sénégal lañ jëm fii ak décembre bi waaw mm, ah, mooy Sénégal royaume <laughs> république démocratique moom kenn dootu ko fi wax royaume fii ba le 15 maanaam dañu daan wax ne Sénégal ci Afrique mooy réew mi nga xam ne mësul am coup d'état loolu kenn sañatu ko wax ci rajo pour man bii mooy deuxième fois coup d'état am ci réew mi te image yooyu boo ko wanee ci àddina ñëpp dëggal ko mooy bi ñuy installé président assemblée nationale <laughs> mais député député yi Europe xeex sax dañ ko def seen biir assemblée yi mm-hmm. armée moo ñëw installé président assemblée nationale mais coup d'état lan la lu dul armée bu ñëw rek jël pouvoir boo xam ne aw ay civil ñoo ko waroon a def armée bi ñëw def ko seen place président assemblée armée moo ko installé démb bii ci mujjaat loi bi yokkal président mandat wam armée ñoo ñëw installé leen génn civil yi waroon a wax ñoom armee ñu defal ko seen bopp sëñ bi loolu mooy coup d'état coup d'état mooy nga jël sañ-sañ boobu moomul woon boo xam ne ni da ko waroon def lu waa may ko ko yow nga foqati ko defee ko sa doole te armée doole la loolu coup d'état la buñ ko tuddee coup de force coup de leneen coup d'état la léegi nag mu des boo ñu rafetal ko dafa waroon nangam ah kay gis nga assemblée même bu jaroon ñu dàq session boobu dañ ko waroon dàq buñ ko bloqué woon bu guddi affaire bi sottiwul mais nañ ko dàq ban urgence moo fi am <laughs> yow nee nga foofu mu nga élection yi léegi jël sa temps. ñoom eh, nee nañ urgence la de nee nañ urgence la. waaw mais comme élection amul du urgence xam nga tey buñ ne woon. élection yi dàquñu ko le cinq la man dinaa comprendre ñu forcer voter loi bi ndax fii ak le cinq urgence la mais élection yi amatul te boobu jamono waxagul la 15 de daf na rek pousse naa ko. waaw c'est-à-dire kon ñoom amoon nañ temps wu woote sax trois fois ci semaine bi wala sax fii ak un mois nañu jël ñu waxtaan xool point yi. dañ ko mais forcing forcing dañ ko pëtam loolu sëriñ bi esprit coup la moo tax ma jàpp ne loolu du lu baax. jëmul kër attation ñi ngi jàngal armée bi lu mu xamul woon gis nga armée Sénégal dañ doon wax ne mooy armée bi gën a discipliné ci Afrique parce que xamuñu coup d'état ñi ngi leen koy jàngal de attention parce que ñi ngi leen di jàngal forcing ci wàllu pouvoir te loolu du seen aada bi mooy deuxième fois ñu koy def troisième fois bi lan la lan la moo tax am na yoo xam ne kenn waru ko essayer di ko tànti ci réew ñoom ñu ko mose ñoom ñu mos ne mais ndeke ñoom ñoom ñoo mën a installé kon kon fii léegi pour nga installé wu ñun suñu doole moo lay fal. Mhm. <laughs> mais attention wallahi réew yi am coup d'état yëpp nii la commencé mooy président bi day dem ba yàgg loi yi dootu ko arrangé mu bàyyi fa loi mhm. di utiliser force de l'ordre yi di réprimer nit ñi pour gën a defar pouvoir am mbooleem ñun coup d'état ñëpp de. loolu la armée bi di xool di xool ba gis ne kii ni muy réprimer askan wi mooy ñoom seen doole lay toogee <laughs> mais ñoom pour pourquoi pas ñoom <laughs> parce que ñoom seen doole la kii di defee askan wi nii mais ñoom ñu ñëw ne la coppe teg ne toogaat fa yooyu sëriñ bi dañ ko dépassé woon lu ëpp cent ans ci ginnaaw parce que bu njëkk mën nañu wax ne nit ñi yeewuwuñu woon dañu daan xeex ba toog ci pouvoir bu dee ci aada yi fii ci buur yi fi nekkoon bu dee ci tubaab yi ñëpp dañuy xeex ba accéder pouvoir nga yëg ne doole moo la may pouvoir ñu xam ne lii du yëfu nit parce que da jaar ci ay bakkan di tuur ay deret pour toog ci siis bi. ban njëriñ la Abdoulaye Wade waxoon na ko je ne marcherai pas sur des cadavres pour dugg biir pour dugg biir. palais mhm. léegi nag ñu ne lii nañ ko changé ñu def ko mu nitee parce que duñu ay bàyyi ma ñu def ko mu nitee mooy lan mooy ñu fexe léegi nit ku ne ñu lay fal ci kart askan wi ñu laaj leen seen baat ñoom ñu tànn ki sedd seen xol te kenn du leen dóor. kenn du mhm. la bunduxataal loolu Sénégal xoola kañ lu ëpp 60 ans Sénégal a ngi voté musuñu am problème mu xeex ba toog ci pouvoir. Mhm. mais précédent bii ñu jëm dafa mel ni léegi dañ bëgg a installé wu que képp kuy toog ci pouvoir na nga toogee doole man séentuwuma woon président nekk président guerrier bëgguma woon lool man président sage laa doon soxla. Mhm. ay opposant guerrier mën naa nekk ndax xamagoo réalité pouvoir. Mhm. nga nekk guerrier. wàcc ci mbedd mi marché fii yëkkati xeer dóor parce que yaa ngi ci mbedd mi. mais ki toog ci pouvoir bi moo lay woo nga ñëw. parce que moom sage la du xeex. mais tey boo seetee yenn décision yi dafa mel ni dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg a walbati président def ko benn guerrier quoi maanaam président même bu defee yenn actes yu métti sax dañ koy tàccu ci actes yoo xam ne violence lay àndal ray lay àndal au lieu nga tiit ci mais dañ naan woy c'est ñuy dóor nga naan c'est ñuy tëj nga naan c'est or ko koo xam ne moom dafa waroon a fekk ñiy dóor ak di gaañ ak di rey mu jubbanti leen ne leen du nii moo tax man ma jàpp na précédent bii baaxul dina doy waar mooy doole joxeetul nguur ci àddina loolu dañ ko war a bàyyi mhm. tubaab yi geer yu métti yi ñu daan def defatuñu ko France ak Amérique yaa leen déggati ci yenn guerre yi dañuy pousse réew yu ndaw yi ñuy guerre léegi golfe bi ñoo ci des mooy arabisant yeeg yooyu ñoom ñoo des ci bombardement yi mais tubaab yi doo leen déggati ñu xeexati ci seen biir parce que xam nañ ne du yëfu nit léegi lan la ñuy guerre ñoom techniquement économiquement ci yooyu lañ nekk di calculer mën nañ laa pousse nag di la jox ay armes ngay xeex yow. Mhm. mais Amérique ngay xeex ak Angleterre Amérique ngay xeex ak France doo ko dégg. Mhm. xeex yi ngay dégg Russie yi ngay dégg euh, Gaza ak yooyu ñoom dañoo ne ci ginnaaw di puus mais daanaka duñ ci sonn foofu nag laa bëggoon Sénégal ñu bàyyi waat xel ñu xam ne fii nu jëm baaxul mooy président wu guerrier bariwul njëriñ sañ-sañ bu ëpp amul chance mooy askan da nga leen di tane su fekkee ñi fi nekk dañoo xaw a radical dañoo am sañ-sañ sëriñ bi da nga leen di da nga leen di gën a dal pour nga mën leen a yar wolof mooy wax ne koo bëgg a yar mhm. da nga koy gën a yaru mais dangay ngay dof doflu maa la gën a dof acca nañ dem dangay ngay réew réewlu maa la gën a réew acca nañ dem cest à dof yu bare te amul sens te nag pouvoir day doxu de doole day njëkk ci loxo waaye du ca mujj gis nga bis bu jógee ci sa loxo ñaari possibilité rek nga am ñu di la def na nga daan def la nga daw moo tax ñi ko daan def ñi dàq dóor seetlu leen. Mm-hmm. bi doole ji toxoo ci ñoom parce que doole du sax ci kenn. Mm-hmm. yii lañ tànn benn dangay daw génn réew. Mm-hmm. ñàkk jom. walla nga daw sukk jébbalu ci waa ji ñëw rallier ci moom wa illaa nga dugg ci kaso bi te néew na koy tànn ci ñoom dugg kaso da leen di jaral kay ñu ñëw sukkuraam jébbul wa illaa ñu daw génne réew ma baleen fa dictature yépp noonu la ñu mujjee waaw léegi loolu yow boo ko naree mujjee doo ko njëkkee rek nga def mbir mi mu rafet gis nga ki yàlla di tànn ëllëg wallaay dara wérul ne jomaay bu demoon mooy gagné kenn mënu ko assuré yàlla moo xam kan la te tànn na ko sax ba pare gis nga puus bi puusaat bii app bee jotagul rek. Mm-hmm. man li ma gëm mooy kiy toog. Mm-hmm. pare na app bi muy toog pare na mën nañoo juum ci app bi ñu ko jox ñu puus ko waaye bu ñu fa yeggee ku mu neex ak ku mu naqari kooku mooy toog. Mm-hmm. kenn du ci am pexe. jërëjëf Imam Ababacar Sylla ma bàyyi la ak message bi nga xamante ne di ko lancé Sénégalais yi si liñ jëm. muy fii ba le 15. ndax li nga xam ne projet de loi bi jot naa jàll si forcing. ban message ngay lancé Sénégalais yi. waaw message bi daal mooy ñu dal rek ñu dal te xam ne nguur doole du ko joxe ay pexe du ko joxe waaye dogalu yàlla moo koy joxe qul lillahumma maalikal mulki tu'til mulka man tashaa'u wa sunu borom dafa ni nguur man yàlla maa koy joxe maa koy jox ku ma neex waaye maa koy foqatiwaat ci ku ma neex loolu nag boo ko xamee bon di nga kaas sa droit lépp lu la yoon may pour nga defi ko nañ dem defi ko ñi nga xam ne ñoo ko séq ak moom lépp lu leen yoon may pour ñu dem defi ko nañ dem defi ko waaye nañu bàyyi xel ne li yàlla di dogal moom pare na xëy na àpp ba la ñu yeggagul ñi nga xam ne ñoo yore nguur gi tamit ñu fàttali leen ne leen nañu bàyyi xel yàlla ku toog 12 ans tey ngay compter naan 9 mois 10 mois moo lay dese boo rafetalul rek amoo xel nañu rafetal. da bàyyi forcing bi bàyyi jaay doole gi gis nga wol wal fajri ngi nii waxuma tëj xam nga dañ ko daan tëj tey dañoo rocc licence am ma gis doomu si Lamine yi génn ci biti toog di jooy di ñaxtu ma ne seetal ma lii c'est-à-dire ana lu gën a metti koo xamante ne waxuma moom boppam waaye ay boroomi kër boroom kër yu bare bare bare ñoo fa nekkoon di xëy di liggéey ak a wàcc nga xëy na ràpp télé ba yemoo ca nga rocc licence am mooy dootoo émettre sax yow te xoolal après yow nga dem xëy sa place yow di fayeeku di jox aw nit ñeneen ñi di leen sax ñaawal ci lan man boo ne woon dañoo sos boo ne woon dañoo wax lu amul mais dafa dem sur le terrain filmer li mu gis teg ko mu nekk réalité ci réew mi loolu nun ci tëjee ab tele réalité su fekkoon dañoo indi ay image yu amul wala ñu jëli loo xam ne wala ñu diffamer nit à la mais koo xam ne ci mbedd mi la taxaw filmer li xew ci réew mi tegaat ko nga tëj télé ba yow lan nga bëgg lii man ñàkk sago laa ko jàppee man dama jàpp ne ñu yor nguur gi dañu war a dellu ñu xalaat ñu am sago ñu dal gis nga bu yàlla namul ne jeexul du jeex waaye bu nammee ne jeex na c'est fini nañu dal ñu fexe dajalewaat askan wi xol yu tàng yu metti yi ñu fexe nu ñu ko reesalee du yomb nag parce que fi ñu yegg dafa sori waaye ñu jéem ci dara balaa balaa pouvoir bi di rëccee nii ci seeni loxo loolu daal ñi ngi woo ñëpp ñu bàyyi ci xel waaye woo leen ñoom it ñu dellu si sago woo ñi nga xam ne ñooy xelal président de la de la euh, république nañ fexe lu ko jubaleek askanam moo ëpp dooli foofu ñu fexe muy réprimer askanam ñu naan ko waaw góor di ñaawal di duma di dóor di tëj di rey ñi ko daan def ñëpp seen mujj rafetul seen après toujours ma jël ci exemple jeexal na pouvoir 30 ans après ñu dóor koo tëj kaso ba mu dee ci kaso bi fii la deewee Sénégal te ci prison la deewee ndax biñ koy tëj mi ngi ci prison kon loolu ku ko dul bàyyi xel jàpp ne mbir mi ci at mii la yem ndax nga sa bopp jërëjëf monsieur Mbaye ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di jéggalu mbokk yi lépp luñ ci juum yàlla ñu ko yàlla jéggal lu ci jaar yoon ñu ngi koy sante sunu borom salaamaaleykum wa rahmatullah